Sam Mitchell, nice pocket pass to mbokk yi ni ci Lutte TV ak BP Actu yëpp di leen nuyu di leen ziare tey nag ñu ngi fii si Gambie ah ñëwoon ci jàkkaaru bu mag ko nga xamante ne mooy Jamaïcain woote woon ko ci diggante Xoyantaan ak Baye Mandione wulli ak Lirou Diane waaw démb loolu nag jàkkaaroo bi waaw kooku nga xam ne mooy Wouly ak liiru jaan tamit ñëw fa wàcc ko ba muy zéro waaw Wouly ñu ngi lay nuyu. Lutte TV yow. Paate uh-huh. sama booy la. Uh-huh. non Lutte TV sama Lutte TV la ak BP Actu. mais man vraiment Lutte TV la far mais BP Actu Ameth mooy directeur bi xam nga Ameth moom. Uh-huh. tur bi baax na. waaw Seydina Mohamed nga tuddee. waaw non Ameth moom xaritu ñëpp la. waaye Lamine Lamine moom moom mooy loolu. xam nga bo maanaam. Lutte TV ak euh, BP ak dafa am tur yu baax. mais buzz di yàq ay turam naa ay buzz Ibrahima ni mu neexee. Ibrahima Khalilullah muy bëgg ay boy naa buzz. Ibrahima. fooguloo ne Lutte TV ak BP Actu ñooy def buzz moo tax gars yi di ko woowee buzz. xam nga booy bi da ngay waaroo dafa war a tudd Ibrahima Khalilullah. Jama Kee nga ne moo ko njëkk indi gaam xaw ma nag. Jama Kee moom lu ko neex lay wax. waa di gërëm sama ñaari waajur di sant sëñ Abdou Karim di sant sama sëriñ. sëñ Modou. Aban Mbakke. ba borom daaru maam Cerno Ibrahim di sant sëñ Modou Kara Mbacké noo rëy ni di sant Kara Mbodj international joueur bu mag boobu ne Qatar tey def ma woo na ma dinaa la jàppale ci combat bi tey rek tax Kara Mbodj borom Qatar doomu ndeyu Abdallah Maysa Waly John doomu ndeyu Baye Fall. Kara ñooñu ngay sant ñëpp ndax xañ ci liiru jaan waaw oh, Kara da xew ci moom sëñ Modou Kara lañ ko tuddee sëñ Modou Kara Mbakke noo rëy ni Kara Mbodj bi nekk Qatar di ko toj actuellement nii di def bii chaque su moom bii. non Kara Mbodj moom daanaan la moom. rek xam ne sama xarit léegi la ma ah. ah kon yow ñu jàpp ci ko bi bari na léegi démb naka gisee jàkkaaroo bi démb ak lan nga doon li ci gàmmee yi tamit ni la teertoo démb. soxnaam Kara Mbodj dafa am soxna su baax muy faatu Mbaye mooy soxna Kara Mbodj Kara di gërëm aussi doomam bu ndaw bi mooy Aram waa Gambia maa ngi leen di gërëm Dibel Touré maa koy gërëm Nogo Cissé maa koy gërëm Ousmane Diop Abdou Dramé boobu Angleterre borom Amérique États-Unis d'Amérique Abdou Dramé mhm. waaw di gërëm waa Dakar Baye Sall di Baye Saliou Sène Jamil Sam moo baax moo gore waaw jàkkaaro bi démb laa wax ak ni la Gambien yi teertoo démb ndax yaakaaroon nga loolu ne boo ñëwee da nga fekk loolu indew bi nga ñëw àndoo kenn ku jógee Sénégal te démb bi nga dugg see ci jàkkaaro bi gis nañ ñëpp jóg taxaw di la tàccu lan nga seq ak Gambien yi ba mu demee noonu. waaw loolu sant yàlla la aussi di santaat suñu borom parce que vraiment def na ma ci xol doomu aadama yi macha allah yan na ko yokk. Euh, Gambien yëpp bëgg ma xam nga muy góor di jigéen kon Gambien yëpp maa ngi leen di gërëm journaliste bu mag boobu nag Gambie sama xarit la di gërëm waa Gambie gépp parce que dem vraiment même xoyantaam mi fi dëkk sax maa ngi fa supporter. waaw démb moo tax ñu jaaxal dama foogoon ne sax yow da ngay làqu di fi ñëw ndax mbooloo mi gis démb ñu génn topp la di la supporter te bi ngay ñëw àndoo kenn mu jaaxal ñu lool ñu ne wuli nag lan mooy secret Gambie. li neexul. ah neex na trop. ñëw gambi ñëpp ànd ak man jigéen ñi góor ñi kilifa yëpp bëgg ma. Dibel Touré yin Abdou Dramé yin kilifa Gambie yi. waaw ñu gis nga war fee bëree ah, le 15 décembre sa diggante ak liiru jaan lan ngay wax Gambien yi tamit ñi lay ñi lay ñi lay seetaan ak ñi nekk Sénégal ak àdduna bi yëpp. Gambien yi nañu teel a gan parce que Magatam Diane mi mm-hmm. dafa suna waa Dakar léegi nax naa ko bandi ko Gambi mm-hmm. xam nga jaan ju magat xam nga man dama yeewu jaan ju magat bu jógee Dakar ba ma ñëw Gambi day son waaw est-ce que jaan ju màggat bis boobu dina neex a daan ndax ah, bu nekk kan moo koy indi ñu ne Balla Gaye 2 la dageer guy gi nga gestu ci ginnaawam gis magi ah, géej waay yëpp dar ko ñoom grand Tafa Ndiaye ñoom grand Pathé Sylla sama taw maa ngi koy nuyu ñoo ñëpp bu ñu ko daree indi ko ndax bis boobu nga foog nga ne dina neex a daan. day neex daan loolu laa ci bëgg parce que combat bi li ma ci liggéey du pour magatam jaan parce que suma wax leen ko sama rawaas laa bëgg jël ak saa ci parce que moo koy andi ak Balla tafaatin mu may andi bawol bawol laa bawol sans frontière tafaatin Bada Jon. waaw Cheikh waa Bawol Cheikh Anta. sama maga Bada Jon ñëpp Bawol sans frontière bi ah, ñëpp may andi. ñoom Bada Soum ay ah. sama boy bi BMW. mbay guy gi Kewel wuli 2. Mm. Bour Sine attention. Gambie kenn kenn du des. mbëri ba wala ñoom Socé Mané sama booy la booy rëbës. ah ñoom booy rëbës. li ma ci entraîné sax mën na ko entraîné. ndax ñooñu bu ñu toppee sa kaw pression du la jàpp nga war bu bool bool yëpp indi leen fii ñu tax nekk sa ginnaaw ndax doo ànd ak pression boobaa. Magatam Diagne kenn lépp pression jàpp parce que bu ko bala ngay àndee. Ah. te bala ngay xam ku ne xam na fi tam mag jëmmam man bala ngay laa yërëm loo yërëm Balla Gaye nar a jàpp ci combat bi dégg naa mu ngi dugg fu ne sëriñ bi mu xam mu ngi koy woo. mais actuellement nii macha allah. foogaloo yow yaa tooñ sa bopp yow yaa bëgg a wax ne da ngay daane monument Guédiawaye bi loola waral ñoom Balla jóg foogaloo yow yaa desal combat bi. non monument bi dafa daanu. non bu daanu lu baax ci waa Guédiawaye. monument bu ne waay rek am na fa ñaar fukki at ak juróom-benn. Hmm. yàggut. ah waaw dafa samp beneen bu bees. foogaloo waa Guédiawaye la doon bëgg yow ko bëgg samp yow. beneen booy bu bees rek. beneen bu bees beneen bu dem samp ndax gis nañ ne ngéntal Balla Gaye lii nga dem fa te ñu Lirou Diane nee na kenn invité wu la nga dem fa ngir bëgg coow. maa bëgg a daana mën ma ba nag yow nag yaa yaa ngi doog a laaj laat man maay ne ma monument géej waaye li neexul. daana monument nekk nekk monument ba. est-ce que loolu dina moo gën a yomb dama ne ne. Hmm. Magatam Diane dama ko nax indi ko Gambie xam nga Diane bu jógee Dakar magat bi ak si ndox bi. ndox bi day ko jaxasee ba bag bi kii bu lee feere bi rek commencé na jaxasoo. kii waaw kii bu may tuusa balaa ko bi mu feebar. lan moo koy feebar. merci ni koy jege kii dalam mu sama kër. dalam. ginaar yi ko jabar jéeri jox du caan man du ma fen loolu man dafa. yow looy dee la yow looy dee dalam. dama koy wax jabar yi jéey. mais ah. jabaram man la bëgg. jox naa ko sungub boo xam ne da koo def ginnaaw rewaare ko si barke si nga xamul sax. <laughs> est-ce que foog nga ne ko daal. kii bi waaw daal bi foo ko jëlee ku la jox daal bi. sungub bi nag sungub bi ko jox day neexal ndig. <laughs> loolu day neex ndig ndig moom dina neex moom maa bëgg ndig li gën daal bi laa foo ko jëlee ak loo ci nar daalu jàmbur bi nga jël. ma ne ku muy entraîneur dama ko jox géejawaay. ku muy entraîneur ah yaa ngi jaxaseeti de yaa ngi bëgg indeeti coow biir géej waaye yéen da ngeen may man man du ma jaxase kat mais nit ku ko defal lu baax bu ko waxul bu ne ay noonu na ci boole mais du ma ko wax ban mbërë mais dalam yor naa ko quarante cinq lay sol laaj ko waaw léegi bés bi naka nga si fas yéene ñëwee ci làmb ji lan nga indi ci làmb ji bu boobaa lan ngay da ngay bëre wala da ngay xeex ba mu daanu kii ma man tam ku ma fekk may bëre ma yow ñaata yow ñaata ngaw nga am dégg naa bari na de. neuf war na yàlla. neuf kaw. mën naa limal très bien du gaynde laa jëkk a bëreel. doo ko mu daanu. bëreeg booy bu ba Dominique. barke sëñ Baba doo mu xalango. bëreeg escorpion deux fois doo ko mu daanu. ñaar yoon yëpp door ko mu daanu. quatre ñaar yoon laa ko door mu daanu mu daanu lii lu ma door ko saambe mu daanu. Mhm. door ko tëngëj mu daanu. nga door ko seex ñang tamit ñaar yoon mu daanu. ñaar yoon mu daanu. booy suma bu nekk écrit face. waaw barke Seydina ko doon dóor ba mu dam. Hmm? door maam mos a door mbër te start. Ah. ba mu dam barke Mohamed Rasulullah keroog ambulance ko jële Thiès combat booy naar. Jordan booy bu taxar dama koo dóor ba mu dam. Hmm. ambulance jël ko. Hmm. ñaar laa ko six laa ko gunde. bàyyi zaal ma fekk Thiès kor ko barke sëñ Bamba bi ma ko yéene ko mu nelaw loolu du set. yaaw jaal moom sax boobu boobu ci mën a boole kor naa ko doo ko mu nelaw. Hmm? loolu du wit. Hmm? non doo tey booy caam Bambey combat Laman Sarr ak. Euh, mbër bu fàtte naa ko mbër bay na gason tegoon ma doog daanu daa aussi ne diis la parce que daaw saa fi def doog bu daan waaye. loolu fële na fekk xam nga fàtte naa fàtte man ama dis yi yi ma YouTube bi Adama Tere ba ma ko dóoree. waaw Adama Tere ba ma ko dóoree dafa xalangu Sengnan. Sengnan deux ñeenti yoon laa bi rek moom. bu abi tas lam bi def ko max sunil ñu ñu demaat ma doog fa mu daanu xeexee bu métti ma ma doog daanu ñu bëriwaat reefan lam ja yàqu gaston bëriwaat du fii tëngéej combat Saaloo dim la jox ma doog mu daanu ak Adama ci la muy diis ak daaw saa Thiès Gambie dama ko dama ko dama ko. déet boobu ba mu fa doon fekk wulli xam nga nag arbitre bi arbitre defal ndànk rek lool lool lool loolu fa na fekk. ñëpp a ngi leen attention bàyyi ma ñoon wax naa ko. nee naa ko buy daan xoyantaan na leer. parce que yéen da ngeen di far. mënumaa door Sa Thiès ba mu daanu ci ci kaw saaku yi. arbitre daa soufflé. mais arbitre bi yéen xam nga Sa Thiès. moo leen di boole mu ne la soufflé moo leen di tàggale. mooy seen champion équipe nationale. xam naa bokk na ci. bokk na ci. waaw booy a bëri ñëpp ne moo mën. Mm-hmm. mais koo dóor ba mu daanu ci ci ci kaw kaw saaku. waaw arbitre yow bi ngay door Sa Thiès ba foo taxaw. ci biir géew bi. <laughs> waaw nan bàyyi nan bàyyi noonu daaw la woon léegi léegi nga jóge ci léegi nga jóge ci Sa yaa ngi war jomaat ci stade bi nga doon bëri ak Sa Thiès nga war faa bëriwaat ak ko nga xam ne tey mooy mooy Lirou Diane. onze parce que dix dafa toll onze ak Lirou Diane muy onze. Mouhamed li neexut BP Actu neex na BP Actu neex neex na. Lutte TV moo ko gën a neex. booy bi Ibrahima dama ko wax bës dafa yàq tur wi booy booy na bëgg bës quoi. non li non Sidi ñooy def bës nag moo tax. gaa yi booyee bës BP Actu moom na ko gaa seetaan. parce que Mouhamed yaru na. Lamine nag sama waaya la Lamine Bulik TV. Bokar Ndour. Hmm. Lamine man dafa li neexul. la Lamine la faral. keroog yëbal naa ko ci liiru jaan mu am lu mu fa def li neexul. loolu moo tax liiru jaan ne ko yow man la faral. ah non Lamine est-ce war naa far. Lamine damaa a boppam li neexul. Hmm. la yebal naa ko ci liiru. Hmm. mun nañu ko am lu fa dafa xam loolu am lu. loolu bu liiru ñëwee ñëpp ànd ak yow même reporter yi sax di toog moom. Hmm. di ko nuyu di ko jox gars yi waaye lii neexul nag. <laughs> waaw mbokk yi ko ngeen déggoon mooy wulli ah waaw. di leen jaajëfalaat beneen yoon ah ñu ngi woon tey Gambie fii. nekk fi ak ñooñ nga xamante ne bu ñooy wulli ak ñoom liiru jaan tey ñu nekk di waaj combat bu mag mooy la 15 décembre dégg ngeen ko ci. kooku nga xam ne mooy wulli ñu ñëw nag diglu liiru jaan ba xam lan lay indi.